ni mu dina couvre-feu metti hmm. metti na couvre-feu bi dafa metti mom parce que li na fa metti moy euh, lañ euh, activité yi ñu daan def muy wax sun walu liguey parce que sun liguey goudi la sun liguey mi ngi daan commencer presque 19 h jëm fajar te danaka léegi 19 h demi ñu wacc te bobu mëno fa liguey motax metti na trop ci ñun ndax bu ñu ñun employé tam mi ngi suñu ginnaw employé yi nga xamantene ginnaw yalla fi nañu amoon yaakar parce que fi mu ni danaka mom yaakaar si ñëpp daal yàlla leen yor mais ginnaaw yàlla fii nañ daan suturloo comme ñoom it na si ñoom trop. président matuwaay yi mu jël si couvre-feu ko suñu kaaraange moo tax mu jël ko ndax ku ne xam ne bu fekkee feebar dafa am si réew ñu xam ne dans le ñëpp moom la ñuy dund kon su fekkee dafa jël ay mesures yoo xam ne dafa ne ñu toog suñu kër kon war nañu tamit règlement yooyu ñu respecté ko bu baax. koor gi ak couvre bi dana métti. man nag maa ngi doon wëruñu mel ni yéen. président Macky Sall ñoo ngi lay sant di la gërëm couvre-feu bi wax dëgg yàlla fonk nañ ko man may naa leen sama 40 minutes bopp yoo xam ne sama xol daje sedd guy yu ma may leen ko. avant 20 heures man may naa leen 40 minutes laa la wax. buñ sañoon nag mu yokk heure bi si biir koor gi ndax si biir koor gi nag dana doon loo xam si dana métti méttiwaay goo xam si ndax nit ñi buñ xëyee. suba teel gi bu nu nekkoo yendoo koor bu bu ndogee danoo war a raraag si am na si ñoo xam si bu daan dog lan dem di dem entraînement di daw yi di pour lu kii seen i yaram bu nu wëlbatikoo nag nga wëlbatiku tëjaat leen si kii boobu noonu nag mën na ne xëy na feebar bi ngay bañ sax nit ñi kii ko feebar boobu dana mën a gën a développer seen yaram ndax nit ki nag bu wooree ba suba ba ngoon bu dogee war naa doxantu ji sax ay jéego pour lim lim dog mën a wàcc. waaw ndax tey dañ naan def soo wooree soo dogee di nga génn doxantu ji baa nga dem defi sport baa nga dem defi leneen su fekkee ne tey da ngay dog ba pare toog ki sa kër tension yi bëri na estomac bëri na ki doomu aadama yi kon na tey su ñu mënoon a yokkal heure bi bàyyi ñu bàyyi 22 heures wala ay 23 heures loolu dina baax ci ñun. waaw koor gi moom koor gi moom ni ma koy waxee rek koor gi moom kenn wàccewu ko yàlla ko wàccee te it ba ko yàlla wàccee ba léegi ñu ngi koy def nañ ko baaxoo defee nag. mooy saa yu ñëwee ñu ànd ko di ko woor euh, ni ko sunu borom santaane. rek xam nga koor moom moom ku ne xam ne ne ci borom kër dépasse koor dafa metti te Sénégal moom ñëpp amuñu moyen yor dépasse semaine loolu laa bëgg nit ñi xam ko yaa ngi dégg kon dina métti trop am na ñoo xam ne seen dépasse dañ koy lijjanti journalièrement dañuy xëy dugg ci marché bi taaba taaba yaa ngi dégg ñëw joxe dépasse am ñoo xam ne seen dépasse dañ koy lépp xëy taaba taaba dama fayat bor. kon kooku bu fekkee ne euh, euh, koor gi sëñ biir couvre-feu bi day continuer dina metti trop trop trop trop. ñun dañ daan faral suñu ndogoo rek ah bala ñoo lekk dara dañuy takk suñuy daal génn daw ba tokkoor ba def quelques mouvements étiré wu ñëw sangu daal diraal beneen air pour mën a toog ndogu bu baax ndax xam nga koor dafa metti nga xëy suba woor ba ngoon jot xam nga mënoo attaqué rek ndog rek commencé lekk il fallait que génn def yenn course même. am na mag ñoo xamante ne dañoo amee ay tension ñi xam dañoo amee ay estomac duñ lekk rek tëdd loolu arrangé wu leen te koor dañuy faral di changé plat yi xam ne fekkee yàpp guddi xam nga baaxul ci estomac. waaye dim mag sàll koor gi couvre-feu dana métti boo lekkee tëdd am na ñoo xam ne bu lekkee tëdd du baax ci ñoom dimbali ñu ngir yàlla yokkal ñu ci tuuti rek tuuti nu mu toll baax na ku ndog ba pare mën a jaabante nga xam li nga lekk wàcc. couvre-feu bi xam nga nit ki mën naa dox ci biir këram. d'accord mais nag dox bi taamu nañ si ngay maanaam dox benn distance boo xam xam nga ñun ay sën lan ñun ñëpp ay sën lan gars gis nga koor gi bu ñu daan dog ba pare da gis nit ñi dem di daw yi pour ñàq même ñu ko dëw def sax danañ ko def pour sant seen pour ñu gën koo sentir. coronavirus bi moom ñoo ngi ci. ci xeex bi ñoo ngi ci ndaxte li ñu sant yëpp ñu ngi koy def raxasu la ñu sant takk masque fagaru ci suñu bopp loolu nag fekkoon nañu ci dañoo dañuy gën a doole rek waaye loolu moom fekkoon nañu ci ñu koy def.